le président de la république son excellence monsieur Macky Sall moo ñu jox ay tegtal ay instructions yu leer ku nekk euh, ci ministère bi nga nous ne moom nga nekk nga ba accompagner Gamugi pour que ce soit une réussite looloo waral tey ñu ñëw and ak euh, sama équipe bi yépp euh, xam nga ni bu wadjal waajal gàmm gi soxla nañu nettoyer Tivaouane donc lolo waral. ñu indi matériel de nettoiement bu doy euh, pour permettre ak ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk liggéey bi pour ñu jàppale leen ci wàllu nettoiement incha allah xam naa ni matériel bi ñu indi dinañ ci euh, def li nga xam ne moom lañ leen sant euh, mu nekk aussi beneen mbégte mooy ginnaaw bu ñu génnee léegi ci xalif bi Euh, ñaan yi mu ñaanal réew mi ñaan yi mu ñaanal son excellence le président de la république ki nga xam ne Sénégal dafa am luñ ko dénk sénégalais yi am lu ñu ko dénk euh, ci wàllu responsabilité yàlla oyofal ko yéen bi nga xam ne moom la ko sénégalais yi ba keroog muy yeggali li mu sumb euh, te mu nekk lu ambitieux pour réew euh, nous avons bi euh, inshallah également dinañu indi contribution en rapport avec la direction des eaux et forêts chasse et conservation des sols euh amnañu ay camions citernes inshallah, dañ coordonner ak ñi waral euh, pour mettre à la disposition de ces camions là citernes pour nous indi ndox parce que xamna ni dinañ ko soxla jëf principal problème au Sénégal la pollution plastique bi sachet ak déchets plastiques

Euh, ginnaaw bu ñu defee campagne d'information et de sensibilisation euh, def nañu poser nañu acte en rapport bien sûr ak ñi nga xamné ñom ñun ak ñom ñoo ngank liggéey bi moy ministère bi nga xamné ne yoré commerce moy euh, la douane moy le ministère de la justice moy le ministère de l'intérieur waxtaan naka lañu fexé ba appliquer li nga xam ne moom mooy loi bi nga xam ne moo fi amoon te tere ay xeetu plastique mais nag dañ jàpp ne euh, yem ci euh, loi boobu rek euh, du tax ñu xeex xeex bu tar li nga xam ne moom mooy plastique bi beneen bi mooy xam ngeen ni léegi léegi bi ma bi ñu nekkee xalifi bi wax na d'ailleurs ça nous rassure wax na ci li nga xam ne moom mooy péril plastique bi pollution bi wax na ci li nga xamné moy alam bi wax na ci li nga xamné mom moy mooy li ñuy d'ag, euh, garab bi moy bois bi ñuy dag diko ko jaarale peut-être parfois ci ay frontières wax na ci aduna ci lool nak daf ñuy rassurer ñu am soutien yu mel noonu euh, des voix aussi autorisées euh, que le que la voix du khalife général des Tidianes ki nga xamné ne wax na ci aduna ci loolu euh, lu ñuy euh, rafetlu la euh, lu ñuy bégee la ginnaaw bu ñu génnee léegi ci moom ñaan yi mu ñaan ñaan en retour yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wérgu yaram yàlla bàyyi ko lu yàgg yàgg ci kanamu njaboot gi mu fekkee déwén ak déwén yu bare bare mu ñun ñëpp ñu fekkee ko te tal ko.